asalaamaaleykum sama xarit yi sama mbokk yi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, gis naa nag euh, ku nekk a ngi euh, yëngatu passation de service mbiri mbiri état la maa ngi leen di ñaan rek jarul kenn di ci sonn di déplacé wu parce que nag sama diggante ak kii dugg si la ma koy ñaanal mu am ndam parce que boo amee ndam président Macky Sall moo am ndam te ñun ku ñu xam-xam ne e, xam nañ ñu tey parce que président Macky Sall moo ñu tegoon fi ñu nekk waaw ñu liggéey ci pour mu am dam liggéey nag bu jeexee e, dañu war a ànd ak dal continuer di def lu tax e, ki nga xamante mooy suñu jit di président Macky Sall di am di am jàmm ñëpp xam nañ ne bu ñuy politique tey di jóg ak a daanu euh, président Macky Sall moo tax ñu ñu di ko def kon lenn amu fi dara amu fi et kon nit ñi delloo seen xel te xam ne lu commencé dafay dafay jeex mais àdduna jeexul kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp nag di di leen gërëm euh, di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di feddali sama kóllëre ak yéen euh, di wax it sama engagement ci suñu weti kilifa muy président Macky di maire honoraire u dëkk bi du suñu mbokk aussi kon maa ngi leen di sant bu baax